mu ne itam nee nañu kat jëmmi dee ci boppam dafa metti metti goo xam ne waxoon nañ ne lu dara metti metti rek dee ko gën a metti ci mboolem yi nga xam ne ab jaam mën na cee jaar njëkk muy àgg ci dee bu tolloo ci faatu day mar-mar woo xam ne buñ ko joxoon ndox yépp mu naan ko du ko taxa màndi mu mel ne itam xolam ak aw resam dafa lakk ba ñor xawm ci waxtu woowu nag ci la seytaane yi gëne def la man ci fexe rek ba kooku gëmoon yàlla te toll ci tolluwaay boobu deexee ci ak weddi te bañ a deexaale gëm ndax day ñëw day ñëw ba tollook boppam yore lu nuru potub ndox mu sedd di ko yëngal ci wetam su ko defee kooka la muy gëm-gëm yàlla da koy wax ne ko may ma ci ndox mi waay seytaan da koy tontu ne ko weddi yonante bi rek ne yonante bi daal yàlla yónniwu ko lislaam du dara man dee naa ci diine yahood mbaa nasaraan waxal loolu rek ma daal lay jox ci ndox mu sedd mi nga naan nga xam ne foofa moom coobare yàlla rek xëy na fépp lay dox waaye foofa ci raw bu dee koo xam ne la yàlla naroon ci moom naka jekk mooy ñàkk texe tolluwaay ba day tax mu daal nangu la seytaane wax daal di weddi yonante bi wax ne man naa ci diine yëfoot mbaa nasaraan daal di dee ci kéefër bu dee nag koo xam ne yàlla dafa naroon ci moom texe naka jekk-jekk nag day xam ne lii pexem seytaane dong la daal di gàntu waxi seytaane jooje xalaat li nga xam ne moo nekk ci kanamam xam ne rekk yàlla rek ay yàlla te lam gëmoon rekk muy lislaam di diine yonante bi moom rekk ay diine lii ab tolluwaay rek la loolu lépp nag ci dimbalu yàlla rek la ko jaam bi amee ak di ko waajal ak sàkku nag bala caa àgg wa xukkee net leef na ne anna aba zakariya naka aba zakariya azsaahi damay aji dëddu àdduna lamma xadaratu ba mu ko teewalee alwafaatu faatu ga ataaxu dikkal na ko sadiquhu xaritam ba waxuwate moom booba fii sakaraati mawti nekk na ci sukkuraati dee wala xanahoo te mu sago laa ilaha illa allaahu muhammadun rasulullahi alayhi wa fa araba te dëddu azzahidu abo zakaria azzahid anhu walis xaritam boobu walam yaqul te waxut loolu fa qaala waxaat la ñeel ko saaniyan ci fa axarada mu dëddooti xan walis ko fa mu waxaat la ko saalisan ci ab ñetteel fa xaala te wax la ko azzahidu abu zakaria azzahid ne la aqulu duma wax fa xushiya te xamaleef xushiya muuréef na lay firi bu ci xalaa toppee lu ci bari day amee maanaam xam fa xushiya te xamaleef xalaa yi ca xaritam ba falam maakaana ba mu nekkee nag baxda saaxatin ci gannaaw aw waxtu wajada am na abo zakariya abo zakariya xifatan ak woyof fa fataxa mu xippi ay nay ñaari batam ña fa xaal mu wax lahum ñeel leen hal xultum ndax waxoon ngeen lii ñeel ma shay an xaaloo ñu ne ko naxam waaw araduna gaaraloon nanu xaleeka ci yow ash-shahadata seeres laa ilaha illallah talaasa marraat ñetti yoon wa ahraduta te nga dëddu fil marratayni ci yaar yoon ya waxulta te nga wax fi saalisati ci yoonu ñetteel wa ne laa aqulu duma wax xaala wax az abu zakariya az ne ataani dikkaloon na ma asheytaanu seytaane alayhi yàlla nekk ci moom laanatullaahi rëbbum yàlla ma wal xis yu ak gecc ga walla gàcce ga wa ma xoote ànd naag moom xadahun ab pot minal maay ci ndox wa waqfate mu taxaw xan yami nii ci sama ndeyjoor fa xarakate mu yëngal alma a ndox ma waqaalte mu wax lii ñeel ma ataxtaaju ndax danga nga aajowoo ilahi jëm ci moom faxultu ma ne ko balaa aha kay mu wax lii ñal ma ni ma xul waxal ne xiisa xiisa ibnullahi doomi yàlla fa abaytu te ma bañ xan walis ko tuma ataani topp mu dikkal ma min xibal rijli ci wàllu tànk ba fa qaal mu wax lii ñal ma kasaalika naka noonee fa abaytu te ma bañ xan walis ko aydan ba tey wa fi saalisati ci yoonu ñetteel wa nag xultu wax naa laxoo ñel ko laa aqul duma wax fa te mu dóor alqadaxa pot ba xal ardu ci kaw suuf wa walla te mu dëddu haariban mbir muy aji daw faalam xamal yow saa xarit bi bi an nii ci nag man radattu tontu naa xalaa iblis a ci iblis laa xalayka du ci yow ba li fi nekk aqul daay wax ashhadu an laa ilaha illa wa anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi téere bi da cee teg wa ala hada jaa ñu xoolaat ba xam ndax bokk na ci wax ji wala bokk ji net li bii day dëggal li mu waxan léegi ndax ne ku ñu wax abu zakariya az-zahid dafa nekkoon waa ju baax a baax ba mu tolloo ci di sukkuraat nag ab xaritam fekk ko ci si di ko sax laa ilaha illallah muhammad rasulullah mel ne mel ne abu zakariya daana nanguwut li ko xarit bi sax xarit bi dellu waxaat ko baati seere yi ba tey mel ni Abu Zakariya daal nanguwuta wax baati seere yi ba ci yoon ñetteel wa nag du far wax laa aqulu duma ko wax laa aqulu day mel ni li muy wax mooy li nga may wax loo muy seere ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah duma ko wax loolu muru ndax sax dana leeral waaye loolu nuru looloo tax nag xarit ba daal daanu xëm bañ ca tegaatee waxtu nag abu zakaria ximmi xippi xoole ne leen waaw da ngeen waxoon dara am ñu ne ko waaw sa xarit bi kay doon na la sax baati seere yi yaaru jëkk yi moom dangaa wan gannaaw mel ni daal ku nanguuta wax baat ci seere yi waaye yoonu ñetteelu moom da nga ne laa aqoolu mel na nga ne daal du ma nangoo seere seere soosu mu ne leen déedéet seytaane ci boppam yal na ko yàlla doole rëbb doole ko gàcce moo ñëwoon yore potum ndox dama njëkk jaare ci wetu ndeyjoor di yëngal ndox mi ma ndax bëgg nga ci ndox mee ne ma ne ko waaw waaw mu daal di ma ne neel xiisa doomi yàlla boo nee xiisa doomi yàlla rek ma jox la ci ndox mi nee na ma bañ mu del dikkaat jaare ma ci yetu tànk yi waxati ma ne ma dangaa bëgg ci ndox mi mu ne ko waaw mu ne ma neel xiisa doomi yàlla ma dellu bañati mu dikkaat moom seetaane ci yoonu ñetteel wa waxati ma loolu boobu laa ne ko nag laa aqoolu laa aqoolu joojee ma waxoon seytaane ci boppam laa doon wax naa ko duma wax ni mukk xiisaa doomi yàlla waaye kat du du laa doon tontu moom seytaan laa doon tontu ba mu xamee nag ne man mii yàlla dimbali na ma ba naa ko la akoolu la jël potum ndox ba xalab ko fi suuf moom seytaan daal di daw mu ne xarit bi kon na la wóor ne kat laa àqoolu ja ma waxoon du wax seytaan laa doon wax naa ko du ma wax ne Isa doom yàlla kon yow saa xarit bi na la wóor ne du kat yow laa doon tontu seytaane moomee ma doon wax looloolu laa doon tontu kon nag daay wax ne ashhadu an laa ilaha illa allahu wa anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa ci noonu nag la ku baax kooku génne àdduna ci seere su rafet fil xabari nekk na ci xabar xan Mansoor ibn Usmaan xaala mu ne isa dana ndeem jege na mawtul xabdi deexug jaam bi xasama séddali allahu yàlla xaalahoo mbiram xalaa xamsati aqsaamin juróomi xaaj almaalu alal ja lil warasati ñeel na way donn ya war ruuxu ruuga li malakil mawti ñel na malaakam deema wala mu yàpp wa li duudi ñel na sax ya wala azumu yax ba li turaabi ñel na suuf sa wala xasanaatu yiw ya lil xusamaa ñel na way xuloo ya wa seytaanu seytaane yatihi dana ko dikkal li salabil imaan ngir rekki gëm ga ku ñu wax Mansuur ibnu Usmaan am na xabaar buñ jële ci moom mu ne jaam bi bu demee ba di bëgg a faatu yàlla day def mbiram juróomi xaaj alal ji ab xaaj la ruu gi ab xaaj la ak yàpp yaram wi ak yax yi nekk ci moom ak yu baax ya nga xam ne moom la defoon yàlla daldi digal malaakam deemi ne ko jëlal ruu gi su malaaka mi fabee ruuga yàlla fab alal ja jox ko way donn ya jël yàpp yaram wa jox ko sax ya jël yax ya jox ko suuf mu des ay baax baaxam nag yàlla jox ko ña nga xam ne ñoom la tooñoon amel leeni àq ñu fab nag yu baaxam yooyee fayoo ko ndegam amee na ay àq yoo xam ne fayu ko baal ñu ko woon te bu malaaka mi ñëwee di jël si roog yi itam te fekk seytaane gembu taxaw temm ci rekki ak gëmam bëgg rek mu bañ a faatuwaale ak gëm muy mbir yu tiit yu daje daje ci nit ki wa xabar yi nekk na ci xabar ida faaraqa ndem teqalikoo naag arruuxu ruuga albadana yaram wa noodiya wooyeef ko min samaay ci wàllu asamaan salaasa sayxaatin yetti yuux maanaam yetti wooyu kawe kawe daal ñu ko yebb na aadama doomi aadama atrakta ndax bàyyi nga adduniya adduna amit duniya wala àdduna tara kat ka bàyyi na la yebb na aadama yow doomi aadama aqatalta ndax rey nga adduniya àdduna amit duniya wala àdduna xatalat ka rey na la yebb na aadama yow doomi aadama ajamaata ndax yaa dajale adduniya àdduna amit duniya wala àdduna jamaxat ka dajale nala la na aadama yow doomi aadama a ndax yaa boole adduna amit dunya wala adduna jamaxat ka boole na la wa isa waqaxa ndeem tàbbi na almaytu néew ba fil muwatasali ca sangukaay ba maanaam fañ koy sange noodiya wooyeef ko salaasa say xaaj ñetti yuux maanaam ñetti kàddu yu kawe kawe yebb na aadama yow doomi aadama ay na badunu ko ana sa yaram ba alqawiyu wa doon aji dëgër fama lu màgg màgg ab xafaka doo dil na la alyawma tey jii wa ay na lisaanuka ana sa làmmiñ wa alfasih wa doon aj rafet maanaam mën a wax lool fama lu màgg-màgg askataka noppiloo na la al yow ma tey jii ay na ahibaauka ana sa soppe ya fama lu màgg-màgg aw xashaka njaay xàllul na la muy wéetal na la rek al yow ma tey jii wa isaa wudiha ndem tegeef na ko fil kafani ca càngaay la muudiya woyeef ko talaasa say xaatin yetti yuux aydan ba tey ko yab na aadama yow doomi aadama tadhabu yaa ngi dem day ilaa safarin jëm ci ëpp tukki ba'idin bi aji sori bi xayri zaadin ci lu yóbbal wa taxruju te yaa ngi génn min man silika bàyyi ko ci sa kër wala tarjahu te doo dellu ilayhi jëm ci moom abadan mukk wa tatruku te yaa ngi bàyyi firashan ab lal fatasiiru te ngay mujj fatasiiru te ngay mujj ilaa bayti ci tiit wa isaa xumila ndeem yanoof na ko ilal janaasati jëm ca tàdd ga nuud ya woyeef ko salaasa sayxaatin yett yuux ne ko yab na aadama yow doomi aadama tuubaa texe laka ñeel na la in kunta ndem nekkoon nga taa iban di aju tuub wawaylun na la nekk nga asbaxta di xëy bi suxtillaahi ànd ak merum yàlla wa isaa wudiha ndeem tegeef na ko li salaati ngir jullee nuudiya kon wooyef ko salaasa say xaaj ñetti yuux ne ko yebb na aadama yow doomi aadama kullu xamalin jëpp jëf amil taxoo jë jëfoon nga ko taraaxu da nga ko gis fii haadihi saaxaati ci wile waxtu in kaana ndem nekkoon na xayran di aw yiw taraaxoo kon na ko gis xayran mu di aw yiw wa in kaana ndem nekkoon na charan di ay fa taraaxu kon na ko gis charan muy ay wa isa wudiha ndéem tegeef na ko xalaa shafiril xabri ci kóosu bàmmeel ba nuud ya woyeef ko salaasa sayxaat ñetti yuux ne ko yab na aadama yow doomi aadama maata sam watta ana loo yóbbulu mina xumuri ca dund ga li haadal xaraa bi ñeel gilig ràpp wa maa xamilta ana loo jëf minal xinaa ca koom ma li haadal faqri ñeel ñàkk wa ma xamilta ana loo jëf mina nuuri ca leer ga li haadihi dulumaati ñeel yilay lëndëm wa isaa wuddi xandeem tegeef na ko fi laxdi ca bàmmeel ba nuudiya woyeef ko salaasa say xaat ñetti yuux ne ko yebb na aadama yow doomi aadama kunta nekkoon nga xalaa zahri ci sama gannaaw daaxikan di ajiree fasirtati nga mujj fii batni ci sama biir baak yen di aji jooy wa kunta nekkoon nga xalaa zahri ci sama gannaaw naatiqan di aji wax fasirte te nga mujj fii batni ci sama biir saakitan di aji noppi wa isa bara ndem wan na gannaaw annaasu nit ñi yaquulu dana wax allahu yàlla taxalaa kawe na lëxoo ko ko yaa xab dii yow sama jaam bi baqiita des nga faridan mbir mu koy aju wéet waxidan tey kenn fa tarakooka te ñu bàyyi la fii zulmatil qabri ci lëndëmuk bàmmeel ba waxad xasayta nii te moyoon nga ma li ajlihim ngir ñoom wa ana waaye man nag arxamuka danaa la yërëm al yowma tey ji rahmatan yërmande yataxajjabu loolu dana yéemu min ci moom al xalaayiqu mbindeef yi wa ana ci yow al yow ma tey jigéen bi wala di xabaar ba nee na doomi aadama bu faatoo ba ruuxam tàggoog yaramam daañu ko joor mu dégg kàddu gu xumb xumb bàyyi ko ci wetu asamaan naa ko ah doomi aadama ndax yaa bàyyi àdduna wala àdduna moo la bàyyi benn kàddu ngoog tekke ne ko ah doomi aadama yaa jekku àdduna ba rey ko am àdduna moo la jekku ba rey la ñetteel ba nag mooy ñu ne ko ah doomi aadama ndax yaa jekku àdduna ba mel ne ku ko takk aw say sëpp wala àdduna moo la jekku ba mel ne dafa laa takk aw say sëpp loolu buy door a lañ koy wax yetti kàddu yooyu suñ ko yóbboo nag fañ koy sange ñi dellu joorate ko yetti kàddu yu xumb xumb bu njëkk ba mooy dañ koy wax ne ko ah doomi aadama seeram wii de mas naa dëgër lool waaye tey jii de moom ni nga néewe doole doy na waar ah doomi aadama salaam mi wii day mënoon naa wax lool waaye tey jii de moom ni nga ne patte ak ni nga tëlee wax doy na waar ah doomi aadama bari woon nga ay soppe ak i àndaale daawoo wéet foo toll di wéet waaye tey jii de moom wéet nga lool suñu ko sangee nag te di ko solal càngaay yi ñi dellu joorate ko yetti kàddu yu xumb xumb mu di ko dégg ci wetu asamaan ñu naa ko ah doomi aadama danga mel ne ku waaj ba jekk jëm nag ci tukki bu sore sore mbaa fekkan na nga am yóbbal ah doomi aadama yaa ngi génn ci sa kër tey jii te lu yàgg-yàgg doo fi dellu seeti mukk mukk mukk ah doomi aadama yaa ngi bàyyi lal bu nooye nooy jëm ci néew boo xam ne fañ la fay tëral daawoo koŋ ràpp lool te soo tuut ay tiit yu baree bari ay mbir yu mettee metti fekk la fa duñ ko solalee ak càngaayu noonu mu yëkkati ko nag teg ko ci jaat gi di ko yóbbu nag fa nga xam ne fa lañ koy jullee ba tey daañu ko joor moom doomi aadama ji wax ko yetti kàddu yii daa wax yetti kàddu waaye nag mel na ne yaar rek moo fi nekk daañu ko wax ne ko ah doomi aadama su fekkee daa nga bari la tuub di dellu ci sa borom ndey kon tey jii sa xol dana sedd danga nga texe waaye bu fekkee da ngaa nekkoon ci lu neexul yàlla de ah tey jii day danga nga toskare lool su àggee nag fañ koy jullee ba ñu tëral ko di ko jullee ñu dellu joor ko yetti yu xumb xumb ne ko ah doomi aadama jëpp jëf joo def sa jëf day xamal ne tey jii ngay gis pay ga su fekkee lu baax la woon day ak payam lu baax lay doon waaye bu fekkee safaan ba la woon day a ah, pay ga safaan ba rekk lay doon foofu nag boo ko xoolaatee daa waxan ne buñ ko tëralee di ko jullee dañ koy wax yetti kàddu te lii nga dégg daa mel ne benn kàddu la te mooy liñ ko wax ne ko jëpp jëf joo mës jëf daal tey tey ngay tàmbalee gis fay ga bu dee aw yiw nga gis fay ga mu di yiw bu dee safaan ba noonu daamit loolu benn kàddu la waaye nag tegaatu ci yeneen yaar de mu yet man naam nag mu jàppee waxin woowu yépp mu yetti kàddu mbaa boog fañ doon bindaate téere bi am luñ ca dagg ñëwut da cee teg rekk ne suñu demee nag ba teg ko ca kóosu bàmmeel wa nga xam ne léegi daal la cay toppaat moom mooy jekkandiku nag ba man koo ñoddi dugal ca biir bàmmeel ba boobaa itam ne daañu ko joor yetti kàddu daañu ko wax ne ko ah doomi aadama dund gi nga doon dund ci àdduna mbaa farlu woon nga ba wut ci yóbbal boo xam ne moom ngay indiwaale ci béréb bi nga jëm te muy béréb bu ràpp lool doy waar lool ba utal nga yóbbal boo xam ne moom nga fi nekke fii kat moom dara nekku fi ne ko ah doomi aadama amal nga am koom ci àdduna bi mbaa boo koom moomee daa nga ca waajal béréb bi nga jëm te moom muy bérébu ñàkk di béréb boo xam ne loo fi defutoon rek doo ko fekk mbaa boog comme ma nga yoroon ci àdduna daa nga ca def lu baax di ko jiital mu yóbbal tax nga fekk ko ci fii ngay bëgg dugg nii muy ñaari kàddu ñu ne ko ah doomi aadama ba nga nekkee àdduna day yaa nga woon ci kër goo xam ne mënees na fàggoo leer boo dikkee fii fekk fi leer fii de moom daa lëndëm lool bu fekkee ba nga nekkee àdduna yaa ngi doon fàggu luy tax boo dikkee fii fekk mu leer day doo ko rëccu waaye bu fekkee daawoo bàyyi xel lëndëm gi fi nekk day ah tey day da nga fekk lëndëm goo xam ne dana la jaaxal bu ñu ko ñoddee nag ba tëral ko ci biir bàmmeel bi bàmmeel bi ci boppam dana waxanteeg moom ne ko ah doomi aadama yaa ngi woon di dox ci sama kaw man suuf dire rek tey de moom yaa ngi ci sama biir fii mu nekk te boo tuut da nga fi jooy del ne ko ah doomi aadama man suuf dangaa nekkoon ci sama kaw di wax rekk di woy lu la neex tey de moom yaa ngi ne pat te pat ji boo tuut dana yàgg foofu it daa waxoon ne yetti kàddu lay doon waaye daa mel ne yaa rek lañu indi foofu mu tekki nag bu ñu suulee ba àggal ba nit ñi di dellu wan ko gannaaw yàlla ci boppam nag mooy wàqanteeg waajoojee faatu ba nekk ci biir bàmmeel ba ne ko ah sama jaam bi gis nga nit ñi nga xam ne bëggul leen neex daana tax nga di ma mooy ñu ngi nii tey wan la gannaaw dem bàyyi ma ak yow waaye man nag duma fayanteeg yow danaa la yërëm yërëmbaande joo xam ne lépp luy mbindeef dana ci yéemu defe ne du ma kenn yërmaande ju toll noonu na la wóor ne daal yaay na nga xam ne moom lay ñëwantee doomam ni ma lay ñëwantee ko raw kon nag gis nga ne wax yi doyoon na waar te tiis te metti waaye wax ji nga xam ne moo ci mujj moom dal na am xel wa fil xabari nekk na ci xabar xan anasin jële ci anas radiallahu anhu arda naka suuf si tunaat yi dana woo ku la yawmin ci bépp bëccëg wala latin ak gépp guddi xashra marratin fukki yoon bi xashri kalimaatin ci fukki baat yab na aadama yow doomi aadama tasxaa yaa ngi dox xalaa wahri ci sama gannaaw wa yakuluka te dina lekk ab ak doodu sax ya fii batni ci sama biir wa tafraxu yaa ngi bég xalaa zahri ci sama gannaaw wa taxzanu te da nga jàq fii batni ci sama biir wa tajmahu te yaa ngi dajale alxaraama aji araam xalaa zahri ci sama gannaaw wa tandamu te da nga rëccu fii batni ci sama biir wa taxtaalu yaa ngi daagoo ko puukarewu xalaa zahri ci sama gannaaw wata zillu te da nga torox fii batni ci sama biir watam si yaa ngi dox fi nuuri ci leer xalaa zahri ci sama gannaaw wa taqahu te danga nga tàbbi fi zulumaati ci ay lëndëm fii batni ci sama biir watam si te yaa ngi dox fii jamaaxaatin ci biir ay mbooloo xalaa zahri ci sama gannaaw wa tabqa te danga des waxiidan mbir mu koy ajiwéet fii batni ci sama biir xabar bi dañ ko nettalee ci anas lii da koy jëlee ca yonante bi waaye du lu mën a xamal boppam mel na ne mu ne suufa si yàlla sii dee bu ne ci guddeeg bëccëg bi dana waxanteeg doomi aadama wax ko fukki baat yi te xëy na doomi aadama du ko dégg bés bu ne suuf day wax doomi aadama ne ko ah doomi aadama tey day yaa ngi dox ci sama kaw waaye nag na la wóor ne ci sama biir ngay mujj ay sax di la lekk dellu ne ko ah doomi aadama yaa ngi war ci sama kaw di kontaan ak a maare waaye day ci sama biir nga mujj rekk di jàq ka metitlu te ki ne ko ah doomi aadama yaa ngi ci sama kaw man suuf bëgg alal ba doo seet lu araam ak lu araamut waaye day dana am bis nga dugg ci sama biir mu wër la wet gone man suuf su boobaa da nga rëccu lu tax daawoo seet lu araam ak lu araamut lu am rekk jël boobaa da ko rëccu de tekki ne ko ah doomi aadama